seere rek lañ ci def ci borom bis bi ndax wa zakkirhum bi ayaamillah wa man yuazim xurumaatillahi fa huwa xayrun lahu wa man yuasim shaairallahi fa innaha min taqwal qulub kon ñuy fàttaliku di ko rek lañ ci jul mooy am lu ñuy fàttalikoo ci moom te alxuraan day wax ne booy nett li wala ngay fàttaliku ci ni na ko teg ci dëgg wax na ko fu bari wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu fu fu'adaka kon booy fàttaliku nit ku baax daa am loo war a jànge ci moom kon kii nga xam ne moom la ñuy fàttaliku tey di Serigne Darou Assane Ndiaye ci la ñuy fàttaliku tuuti ci taxawaayam lu gàtt rek ndax moom dafa doonoon jëm joo xam ne. dafa nekkoon misaal mu rëy ci ne taalibu Serigne Touba war a mel ndax Serigne Touba dafa wax ne wala takun mufarritan aw mufritan bal istaqim fi sunnatil waqt sita na nga fexe ba bañ a ëppal ba yeesal moom nag yàlla def na ñaar yëpp boo ko doon natt ci jëmam fees na ko dem sariya ak xaqiiqa soon لكن بلاسي ميغو بكن خو بجوات دا دونو نا جيمو جو رغال يالا كو بري خام خام كو خام لي الشيخ محمود البشير سي من الباخ الخديم سير نكو واخني بوكو لا سي بقيه الصالحين بقيه الصالحين نك بقيه السلف كون لولو دوني سك سيري jëmm la woon joo xam ne itam ku ko tudd ku ne xam ne ku fonkoon julli la ku fonkoon woon Cheikh Mamadou Bassir leeral na ko ci biir seere mu doonoon koo xam ne doy na coomo sëkk seere si ko Serigne Touba seere la ndax Serigne Touba mas taa wax ne sëñ Daaru Asan de képp koo xam ne mi ngi ci sa ginnaaw suñ boroom ak lay soññ ndax boo yeexee rek da nga fakkastal wala mu romb la jàll loolu nag doy na sëkk seere te ki ko seere lu seere rek bu may taxu anil hawa doy na sëkk ci moom seere itam siyaara si ne Serigne Touba ci njaareem mbooloo mu bari lool bi sëriñ bi ne tëll xam ngeen ni leen yàlla melal rek ci pëstef bi muy jug bëgg a raam jëm ci sëriñ bi sëriñ bi ne na ko ñëpp may bu kenn dox sama digg moom te booba defe neen ci kilifa bari na ñaari seere yooyu doo sëkk ci moom doo sëkk ci moom seere yi bi mu fi bàyyi ko le Serigne wax ne dafa mel dañoo dagg sama loxo day jox loolu doo ne sëkk seere kon moom jëmm la woon joo xam ne ñi jëkk a wuy si Serigne Touba bi mu wootee ca Mbàkke Kajoor ca la bokk ca ñu njëkk a ndax ca daara ja xam ngeen ne ne sëriñ bi rasulullahi sallallahu alayhi wa moo ko dikkee wax ko ne ko rabbi asxaabaka bil himmati walaatu rabbihim bi darsi sëriñ daaru asal nag bokk na ci ñu njëkk a futti ko jaayante ngir sëñ bi loolee nag kon yéen ñi nga xam ne yéen di njabootam yàlla defal leen ndimbal defal leen ndax ba li adduna soppi ko soppi ko ndax soppi ko gi moom دفع جمبوت فن نك جاك دوخي دارنا لوا إزبت على إبراهيم ربه بكلماته فأتمه نقال إني جاعلك الناس إماما قال ومن ذريتي سن برم بخون قال لا ينال هذه الظالم كن سرين توا لواي باخ رك مو بوكو موم موت دا لا واخني نيت جيغي نما لوتو سوري ما واي ني سوري نما لوتو جيغي kon sëriñ tubaa ci yitte ak pëstéef ak taxawaay moom lañuy ñu rawante ci moom moom mii nag taxawaayam yàlla defal na ko ci moom ragal yàlla bare xam-xam maanu am pëstéef ak yitte yéen ñi itam nag li àdduna sopp ko sopp ko ba nëgë ni yéen a ngi xeeñtu jeexit yi kon nag ah loo fi gis mu yàqu yàqu ba yàqu seetaan moo du fa yàq ndax Serigne Touba dàq na ko yàqu bakkan rek man ngaa dem ba méngal ko yàqu seytaane waaye yàqu bakkan rek fi yàqu kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen soññ ci melokaan wii nga xam ne moom la yàlla melal te ku leen gis ku ne gis si pëseef boobu ak ci yéen gis ci xam-xam bu mat njulit bu ma sëkk bu ma sëkk ragal bu ma sëkk kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant ñëpp di gërëm ñëpp